ñaan jërëjëf mbokk yi waa kay mi noonu bu neexee émission bi ca kanam tuuti ngeen mën a wootee ci numéro boobu nekk au bas de l'écran 77 euh, 366 bu ko defee yéen i tamit ngeen joxe seen xalaat ci actualité bi nga xam ñu ngi koy waxtaanee fàttali leen aussi suñu yaay mi ngi en direct ci TikTok am page officielle am di vidéo bi leeral n'hésitez pas ngeen dem abu nefa bu ko defee intamit ngeen mën a topp ay actualité en temps réel ci journée bi ak ci li nga xam ne moom mu di liggéey bi muy def ci wàllum ñaan ak seet ci wàllum ñaan googu ak ci wàllum seet sax si la ñuy jeexale bi la émission c'est deuxième partie émission bi donc ci kanam tuuti mën ngeen armé wu seen ay téléphone woote ci 77 366 31 52. mi ngi doon mbokk yi ñu dàmbali tàmbali liggéey bi yaa booy euh, dañu koy njëkkee ak li nga xam ni moom moo di liberté provisoire bi nga xam ne gis nañ ko ñu def ko kii di nit dof ak Alioune Sané les détenus politiques plus de 500 personnes ont été libérées diggante démb ak tey euh, am na sax ñoo xam ne tey jii lañ leen war a libéré donc ñi nga xam ne ñoo leen tuddee woon les euh, les otages politiques wala les détenus politiques euh, tey jii ñi ci bëri libere nañ leen plus de 500 personnes jot nañ leen génn ci kaso bi léegi nag li nit ñëpp di laaj moom mooy lan moo waraloon ñu jàpp leen est-ce que jugé nañ leen ba leen di génne. ak yoon bi leen toppoon fu yoon mujjee ak ñoom ak ñi nga xam ne leen wax ay terroriste lañ ak ay jihadiste lañ tey jii ñu bàyyi leen ñu gis ay vidéo yu viral loolu ci réseau yi ñoom ñooñu prisonniers yi génn di wax naan bàyyi nañu jihadistes yi bàyyi nañu terroristes yi te àttewuñu leen est-ce que euh, justice def na liggéey ni mu ko war a defee ak aussi liberté provisoire bi ñu leen may ñoom ñëpp est-ce que du politique moom moo ci lal donc actualité bi am ci liberté yi ñu bàyyi nit ñi ban ban observation nga ci am. waaw Diagne damay kontaan ci laaj bi nga ma laaj laaj nga ma lu ma sawar tontu. parce que hmm. dama dégg yenn auteur politique yenn euh, acteur politicien yi nga hmm. xamante ne ñoo bokkoon ci opposition bi tey bo bokkoon ci yeewi askan bi mm. parce que yeewi askan bi ensemble de de parti la yoo xam ne dañoo dajaloo mm. euh, ne ñoom dañoo bëgg euh, euh, booloo doon benn mm. yaa ngi dégg kon bu ñu demee ba am noo xam ne noonu la ñu doxee tey ba am ñoo xam ne di poser question lan moo tax ñu génnee ñi te joxuñu explication mel ni xalifa Sall kàddu yooyu dégg naa ko ci moom mm-hmm. mu doon loo xamante ne man lu daf ma def équation benn côté beneen côté defuma ko mi ngi mel ni kon ñoom li ñëpp doon wax ci complot ak ndëgg sarax ñoom ñi ngi ci woon. Mhm. ñu ngi ci doon dox di ko wax. parce que bu ñu demee ba am surprise tey. Mhm. président Macky Sall xëy àdduna wañ loxoom ba détenu politique yooyu génn ñoom xëy na nañu doxee woon ba pelloo. Mhm. ba ñaaroo ba ñettoo ba wax seeni wax xëy na wax jooju dem na ba wax jooju doonatu wax ju ànd ak kàddu. goo xam ne bu ànd ak déggoo parce que bu àndoon a déggoo xëy na lañ toogoon dig leen ko. dig boobu daj na te yëguñu ko parce que ñuy demee nag loolu gàcce la boo xam ne nit dana wax loo xam ne sax liñ naan ku wax feeñ tey bu ma déggee Khalifa Sall di wax lool man damay damay damay damay waaru mm-hmm. te nit dafa lëndëm wolof yàgg na ko nit dafa lëndëm mooy nga ànd ak nit ngeen di kaf di ree oh. tey xëy na lu ñuy wax muy Khalifa Sall muy Barthélémy Dias amuñu doole boo xamante ni tey war nañu tey sénégalais topp leen wala war nañ leen ngëm-ngëm goo xam ne war mm-hmm. nañu topp leen mm-hmm. tey Barth bu demee ba am mairie bi grâce à Ousmane Sonko la ñu coaliser ànd Mm-hmm. lëngoo mu nekk dem doon benn mm-hmm. mais am na ci yoo xam dama doon dégg tam baax di ko wax naan tey su usmaan Sonko naree génn sa lo kaso sama loxo moo ciy dugg man maa ciy jàpp mu nekk loo xam ne sunu borom dogalewu ko noonu mu doon loo xam ne tam wax bu ñaaw la mel ni comme si ñoom ñoom li dugal Ousmane Sonko parce que dama doon dégg loolu mais man du ma gëm dara tànk teguma ci sama wët moo tax toujours ma leen dox mbiru Ousmane Sonko yàlla da cee ne mooy da ngay tëb rek di rëccale di wax wala sunu borom teg ci yow loxo ba nga wax loo xam ne xëy na bëggoo woon kenn dégg ko te liñ naan gémm guy naaj du wax jàmm. Mm. te am na bu ko waxee rek loxo dar gémmiñ mooy nga wax loo xam ne xëy na dañuy xam ne kii amoo ci moom yéene. Mm-hmm. am nañu ko doon ruumandaat nag naan opposition bi am na ñoo xam ne seen bénéfice seen intérêt du président Ousmane Sonko nekk ci biti. du détenu détenu politique yi nekk ci biti parce que ñëpp xam nañ ne tey parti Pastef dafa doon parti boo xam ne mooy numéro un. te nangu luñ ko lool Ousmane Sonko moo tax kàddoom bi mu doon wax ne lépp loo xam ne nit yàlla may ne ko dañ ko ko war a nangul dañ ko ko nangul te yàlla tax nañu xam ne lii yàlla moo ci nekk kon am na ci loom boo ko defee danga ko wax ñaaw ca ba pare sénégalais yi won la ginnaaw parce que moment bi sénégalais gisatuñ lu dul xale yi nga xam ne parti Pastef la ex parti Pastef mu ngi continuer dafa mel ni parti boobu moo gën a dëgër ka tey Pastef bi nga xam ne moo taxawoon parce que bépp sénégalais boo xam ne wonoon nga Ousmane Sonko ginnaaw amoon nga ci Ousmane Sonko tey xel ñaar wala sa xel lëndëmoon ci moom doon na leen wax ni lépp loo gis résistance moo koy maye duma ma dialogue it ñu may teg paaka ci put kon bu ñu bëggee dialogue ak man sama condition dañ koy nangu condition boobu tam dafa mel ni nangu nañ ko parce que tamit mënoo dangay da man dès le début premier dialogue lan laa la wax nee naa la dialogue àndul ak tëj nit ñi boo bëggee dialogue da ngay libérer nit ñi lii deuxième dialogue bi ñu defoon mm-hmm. lii lañ waroon def bàyyi xale yi bàyyi nii politique yi am na tam loo xam ne dama koy signaler am na ko fi def crime tout dernièrement daaw tey xaasim ba ñëpp gis nañ ko mu nekk ci biti lool tam dañ koy jooytu en tant que ay jur mhm. tey nit faat sa doom ci faatin boo xam ne dafa ñaaw ñu dégg ñu ne génn na parce que am na ci yoo xam ay grâce war nañu seet kan la war a gracier ak ki ñu warta gracier am na ci yoo xam bu ñu ko déggee rek for ko ci wéyu bay nit ñi dañ koy ñaawlu comme Sénégal day doon dëkk boo xam ne ku mu neex rey ku la mu neex dóor ku mu neex làggal parce que danga naan su ma demee bu grâce jotee ma génn parce que am na koo xam ne tey defoon na fi ay trafic de médicaments monsieur Diallo de même chose que bi ñuy grace dañ ko génnee loolu tam war nañu seet bu ñuy grace xëy na mën na nekk bon conduite wala borom rëcc na ko parce que meurtre avec préméditation ñëpp xam nañ ne loolu la defoon waaj lii waajal ko def ko ci xel mu dal ak xel mu tey xel moo xam ne teeyul ci dara nga def ko kon boo ciyee war nañ la tey euh, yóbbu correctionnel teg la fi ñu la war a teg nga purger peine bi nga war a purger loolu tam man maa ko ci yokk rek am na ci loo xam ne doonu débat mais comme ñun ñoo toog ci waxukaay bi ñun ñoo koy waxal ñëpp parce que tam day nekk loo xam ne sénégalais ba ci wayjur koo xam ne daf tey dafa faatu du leen neex parce que loolu xale bi mooy ñàkk avenir am bu ëllëgee def fi crime day doon loo xam ne du wàññi dara am na ñu leen di grâce loolu du mérite bokkul ci mérite nit nag mën na dem ba ci kanam xëy na mu def jugement ñu xam ne lii kat accident la dañoo xeex légitime défense wala naanaa mais ki nga xam ne dafa taxaw def waajal xool moromam am soxlaam ne lii kat dinaa ko faagaagal ndax sama soxla sàngam loolu nit waaj la kon président Ousmane sonk bu génnee war naa génn ne woon naa leen kaso du place am président Ousmane Sonko léegi mu génn. Mhm. li waral loolu yàlla gi nga yàlla li muy def vendredi lañ ko dugaloon mooy jour bi ma naan président usman sonk gis naa ko mu dugg ci pale bi. te loolu jour vendredi woon yàlla dogalaan na tey bis buñ koy bàyyi bisu vendredi la mhm. am na bu ko sunu borom dogalee lu ci waay wax ñaaw ca am na ci loo xam ne nguur jaru ko parce que président Ousmane sonk lépp loo xam ne mu ngi koy def bu la nit amalee xol bu set nga amal ko xol bu lëndam foo jaar yàlla dina la weer teg la ci taabal ñëpp di la gis mhm. mu ngi mel ni ñëpp toog suuf rek nga toog ci kaw loo def ñëpp lay séen mhm. kon kàddu yi ñaaw na rafetluwuñ ko am na ci yoo xam ne ñun Sénégal kenn ci ñun warul yéene sa morom nekk ci biir yow nga nekk ci parce que Khalifa lu mu gàtt gàtt moom jotoon na wàllam te ba mu amee métteeg naqar naqar sénégalais yëpp dañu taxaw soutenir ko Barthélemy Dias de même que moom taxaw na fi mu am fi procès président Ousmane sonk ne ñëpp jóg tey bu ñu demee ba amuñ jot loxo boo xam ne jot nañ ko grace à mobilisation boo xam ne président Ousmane sonk taxaw na na tey Barthélemy Dias de nañ ko taxawu nañ ko gunge nañ ko topp. ci loo xam ne nit taxaw na bëgg la faagaagal nga taxaw defaan sa bopp. Mm-hmm. am na loolu nit mën nañ ko mën nañ ko waxaat. am na ci boo xam ne tam wax nañ ko dem mu ñaaw lool ci deru Barthélémy Dias nga duñ la jiiñ de mu fekk la ngay soccoo yeelu liir nit nekkul fuñ ne ñoxoon njaay rek nga génne sa arme. Mm-hmm. loolu même chose bu répété waat la démb xaw ma barki démb. Mm-hmm. ma suivre ko ci internet bi seeni borom. principal concerné yi di ko wax Sénégal fi réewum droit la nañu bàyyi kumba am ndey ak kumba amul ndey ak jaay doole. fii ay sénégalais ñoo fi ne am na loolu dafa ñaaw ci autorité nga nekk en tant que maire bu buñ ne mbilim lacc rek nga génnee arme wala nga taxaw di jaambaar la ak nit ñi te yow li nga doon bul fàtte ay nit ñoo la fal tey ñi nga xam ne tey pouvoir bi mu ngi nar a jeex président Macky saal joxe ay lengeem mu war a jeex ñu war a dem est-ce que ñu fi doon def lu ñaaw du ñu xalaat nan la ñu war a jëflante sénégalais yi fi des parce que président Macky saal dañ koo fal mais ñoom dañuy dellu des ak nit ñi président Macky Sall mën na génn Sénégal munu fee bàyyi complètement mais ñeneen ñi Sénégalais yi dañ koy jëflante ak ñoom parce que àndu ñoom ñoom ànd bu rafet amul benn doxalin ak xalaat bu rafet boo xam ne lu teg seen bopp ci kaw jël nañu jël seen tànk teg ci suuf loolu bépp sénégalais war na ko bañ muy ki nekk fii muy nekk diaspora ba ñu taxawee nag ànd ak yàlla mooy ba ñu takkoo nekk benn say ñëpp doon benn ñu xam ne lii dañu waroon xalaat ne yàllaa ngi ci maa ngi leen doon wax ne mënuñu fexe fexe ba lii question troisième mandat bi xëy na dafa échoué mais ci loolu lañ doon bëgg ci loolu lañ doon ndox dañu war a bàyyi tëj bi ba ñu xamee ne lii ci lañ doon mujj gis ne neewoon naa leen benn jour fii def révélation jaañ ne leen gis ngeen mm. coow li yëpp ci waxtaan lay mujjee mm. xoolal fii àdduna guerre bu fi mës taxaw rek yàgg-yàgg ba ci guerre 14 18 ci waxtaan la mujjee kon munuñ fee def di xamba xamba xamba Elage mm. moom nga xamante ni mooy Elage comédien mm. taxaw na fi ne xanaa président Macky Sall dañ ko liggéey maître Elage Diouf mm. xam am na ñoo xam ne tey yàlla daleen leen def ay nit ñoo xam ne ñoom nay booy rek nay tàkk na lépp di xoolal na jax-jaxi yaa ngi dégg am na ci yoo xam ne waruñu taxawee noonu sa pas loo xamante ni ay comédie la fi nit di ñàkkee seeni bakkan ay xale yu am 18 ans ay xale yu am 16 ans nga jàpp leen sans raison am na ci yoo xam ne ay sos am na koo xam ne nee na ci buntu place am lañ ko fekk muy ataaya ñu toog fa leen yëkkatee am na ci yoo xam ne tam dafa nekk ay injustice yoo xam ne dem na ba dëkk bi xëy na ñi war a doxal yoon ñi yor euh, sécurité et de défense dañu yaakaaroon tey ñun sénégalais bu ñu waree jooytu ñoom ñoo war a taxaw di ñu jàppale di ñu jooyle di ñu di ñu aar mais duñ la fekk sa buntu place yóbbu la am na élèves yoo xam ne dañu génn seen école nit ñi fëx daw ñu fëx topp ci ñu jàpp leen dugal ci kaso bi am na ci yoo xam ne ñaaw na bu fu ñaaw yem lii Sénégal c'est la première fois ci histoire Sénégal ñuy dund li nga xamante ni benn sénégalais waru ko dundal moroom sénégalais waru ko dundal sax ku dul sénégalais masama sénégalais ñu ngi koy ñaawlu mais alhamdulilah Dieu merci que yàlla fu mu dugal loxoom neewoon naa la keroog bu yàlla tegee nga tracé mu tegaat nga tracé bu yàgg mu effacé la mieux vaut que nag ñu jéem a yóbbu Sénégal ci jàmm ko ay wi ñuy woo ku ko woo rek yaa ngi woo fitna te ku woo fitna sunu borom teg ci yow loxo. lépp xam nga lu ñu mën muy ñaan te saa su ne ci la ñuy ne ñaan itam buñ ko xeeb sarax tam buñ ko xeeb ci la ñu nekk ba tey yàlla may ñu ndam may ndam may ñu ndam mooy dëgg c'est pas Ousmane Sonko moo taxaw di xeex mais sénégalais moo doon xeex. Mm-hmm. moo tax ma ne leen c'est pas Ousmane Sonko lañ amal problème mais Sénégalu lëmm lañ amal problème kon bu ñu demee ba mu toll foofu nee naa la toujours peuple bi mooy vaincre peuple bi mooy mooy am ndam. Mm-hmm. kon président Macky bu boolee ci peuple ngalawaay bul dem ci buy génn dëkk bi na fekk mu bàyyi ci réew mi jàmm nit ñi dem ci élection yi lii nguur la kese day jeex mm. nguur bi yàlla moo dul jeex xëccoo beek mbiccoo beeg mbaalo bi dafa am ñoo xam ne seen intérêt da cee ne mm. dañu taxaw pour sénégalais ñenn yi néew doole ñoom ñu am doole mm. di def di dindi am na benn benn lobi boo xam ne tey kontaanuñ bu ñu tëggee du ñu nelaw parce que seen fit dalul defuñu fi jàmm def luñu fi jàmm parce que am na ci yoo xam ne nekk ci réew di noot ñenn ñi loolu ñun sénégalais dañ ko daan dégg ku génn ñu dóor ku génn ñu dóor baro pistolet ku génn ñu torturer xale yi tey boo déggee ni ñuy nettalee torture yi ay xale yu ndaw yoo xam ne waruñu woon xam sax naqar ba di ko gis ñu def leen noo xam ne xale bu ndaw boo xamante ni même pas vingt cinq ans ñu taqal la bracelet kooku bu nekkoon criminel bi gën a doon criminel ci rëbës sax méritoowul ñu taqal ko bracelet surtout affaire politique yi yenn dafa dem ba dañ dañu def fëlëxoo ak réeroo waaye fël commandement bi ngay joxe ku nekk ak la ngay def Sénégal nañ ko teg ci yoon réew mu doxul ci yoon jàmm du fa am fu dëgg am rek jàmm du fa am te loolu moo dem ba ay wi law ba toll fii am na ci yoo xam ne nañu bàyyi mag yoo xam ne dañuy foyee seen xel topp seen xalaat ba topp lii nga xam ne fii ñu egg ni réew mi waru fi woon egg te xamoon nañu tôt ou tard mënuñu continuer di noot kenn Sénégal loolu moo fi war a jeex te képp koo xam ne da nga fee falooti dinañ xam yenn mesure la sénégalais yi jël mhm. kon mesure mesure la nañu jël mesure yu strict sénégalais yi jëlal seen réew seen bopp réew mi en mai fii moom lépp loo xam ne xew na ci nguur Macky Sall na leen leer ne kenn ku toog fii ci nguur sénégalais yi ñoo la dul mayeti nga ko def ak ku doo mënta toll ak foo mën a ne parce que bu ñu taxawee tey ba CEDEAO taxaw américains yi taxaw français yi taxaw àdduna wërngal këpp taxaw Malien Guinéen africain yëpp taxaw ne tey jii lii dafa war a dakk daa war a jeex président Macky Sall loolu waru woon doom waree fam ci ko loo xam ne ndénkaane la yow yaa ko laaj yaa ne jox leen ma réew mi dinaa leen yor dinaa leen aar dinaa leen yiir kon xaaruñ ci woon lii xaaruñu ci lii. D'accord, messieurs